salaamu wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu ngi ànd ak ay yéen fii kër Serigne Cheikh Rokhaya Fall tey nag euh, di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ci liggéey bu am solo boo xam ne Serigne bi mu ngi ko doon def ci wàllu euh, tabaski nga xam ne ni euh, daf ko fas yéene jébbale tey ci fukki fan ak juróom-ñaar bi pour jël ay tabaskiwum yóbbu ko kër sëriñ Saliou Mbacke liggéeyu tabaski bi nag nañ leen fàttali rek ni liggéey bi mu ngi tàmbale ci maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam am jotaan rek day lijjanti ay gàtt di ko yët euh, Serigne Touba euh, liggéey bi di dox ba agsi tey ci Serigne Cheikh Rokhaya Fall moom it euh, mu di ko doxal comme ni ko kullu waa njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñenn ci murit ñi ñoo xam ne ni dañuy jébal ay tabaski saa su ne di ko jox seen i wasila ñu ngi jàkkaarlu ak benn jëm boo xam ne dafa bokkoon ci wàllu liggéeyu tabaski muy Ibrahima Kebe nga xam ne dafa àndoon ak Serigne alin Fall di rakk ci Serigne Cheikh Rokhaya Fall di doom ci Serigne Cheikh Fall laaj ay tabaski ci Touba ak euh, lu ko wër kon ñu ànd ak euh, Serigne Ibrahima Kebe ci ay kaddu. yàlla wa barakaatu euh, yéen mbokku jullit yi mbokku taalibe ñu ngi ànd ak fii ci kër Serigne Cheikh Rokhaya ci liggéeyu tabaski bi nga xam ne ni dañ koy def at mu jot nga xam ne dañuy dajale ay xar di ko yóbbu di ko jëbal seen i wasila liggéey bi nag ñu fàttaliku la rek mu ngi tàmbali ci. maam Cheikh Ibrahima Fall euh, muy dox ba agsi ci seen Cheikh Rokhaya Fall moom it mu di ko def at mu jot bu tabaski jotee muy liggéeyante ay xar di ko jël di ko jëbal di ko jëbal wasilawam ren nag euh, ci 2007 euh, bi ñu ngi tombeek le 17 décembre 2007 baa Ibrahima Kebe aleykum ñu ngi jàkkaarloo ak yow ci liggéey bu am solo bi ngeen xam ne da ngeen ko doon def ci wàllu tabaski ngeen xam ne da ngeen doon wër di laaj ay tabaski léegi nag agsi nañu ci bésu njëbal bi ñu bëggoon rek nga àndil ñu ay kàddu ci liggéey bii ngeen nekkee woon. waaw ah, ah, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu ngi sant yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Serigne Saliou Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ñaanal itam Serigne Cheikh borom ndigal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ba lépp li ñu bëgg a liggéeyal maam borom Touba ak maam Cheikh Ibrahima ñu liggéey ko ba. liggéey bi ba mu àgg foo xam ni maanaam dana koy seen jot ci kàttanu yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak maam seen ñun day Thierno dañuy sant rek waaw di doollee sant Serigne Cheikh Roqe rek ah, ndax ah, mi ngi teg mi ngi tegu ci yoon woo xam ni wii mooy yoon wa maam Cheikh Ibrahima Fall ah Baabul Muridiina eh, jaaroon hmm. yoon woowa ci la Serigne Cheikh Roqe tegu di ca dox di ca wax ah, maam euh, yoonu maam seex rek it moo ko ñor ndax lii nga xam ne moom la fi def rek moom la maam Cheikh Ibrahima nekke woon ci euh, yoon wi di xëy di gont di di ñaq fu mu toll di joxe di soññi euh, murid yi di soññi taalibe yi ñuy góorgóorlu ci liggéey bi loolu itam moom la fi nekk fu mu toll it mu ngi teg nit ñi ci yoonu siraatul mustaqim bu jëm ci yoonu maam Cheikh Ibrahima Fall ak xeetu mu taxara di leen Euh, soññi ci liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall te lu muy soññeel di ci liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall di ci soññi taalibe itam mooy jiitu ci kanam ma ngay jiitu ci kanam ah di wax naa waaxu fi leen topp ci man nu liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall loolu nag dal na xel te seral a xol itam képp ku ànd ak moom ku nekk itam soxol dana sedd te lu mu bëgg a liggéeyal maam Cheikh daal noo ngi ñaan rek mu ko ko waaw jërëjëf ñaata xar ngeen a jébbale waaw noo ngi a jébbale daal fi mu ne hmm. lu toll ci téeméeri xar ak juróom fukk téeméeri ak juróom fukk téeméeri xar ak juróom fukk ak saa jërëjëf sëñ Touba ak Cheikh la ak maam Cheikh Rahma Fall yal na la yàlla lafal cat yi ak musiba yi ak balaa yi barke maam Cheikh Fall def nga ba defal ñu xol sedd na saa waa saa waa ndama nga ca gàcce nga ca waaye ji na waaye gàcce newu ndama ci ne barke sëñ ma seen i fees fan yàlla na ngay maam waay waay dama yomb dama aw aw seen teefee ci la daw barke

أبو رجال ànd ak ak yéen ba léegi fii euh, Serigne Cheikh Rokhaya Fall rek euh, ci liggéeyu tabaski bi nga xam ne Serigne Cheikh Rokhaya Fall mu ngi koy euh, def euh, at mu jot nga xam ne ni dafay jébbale ay tabaski wasilaam tey nag ren 2007 bi mu ngi tombeek fukki fan ak juróom-ñaar ñu ngi nii nag jàkkaarloo ak Serigne Cheikh Rokhaya Fall ñu ngi jàkkaarloo ne ak Serigne Fallou Fall mu Serigne Mbacke Fall ak Serigne ñoom Serigne Moussa bu Niane ak Soxna Ndeye Khady Fall kon njabootu Serigne Cheikh Fall Baye góor bi yëpp teew na Serigne bi ànd na ak ay rakkam ak taalibe rek ci liggéeyu tabaski bi nga xam ne ni euh, liggéey bu am solo la nga xam ne ni euh, bu tabaski jubee dañuy euh, wut ay gàtt di ko jël di ko jébbale di ko yóbbu sëriñ bi nag mu ngi yóbbu ay tabaski wam kër sëriñ Saliou Mbacke ren nag mooy ñetteelu at moo xam ne ni mu ngi koy yóbbu kër sëriñ Saliou Mbacke di fa yóbbu ay tabaskiwam ren nag sëriñ bi fas yéene yóbbu téeméeri xar ak juróom fukk ak benn benn bi nag euh, da koy jox euh, koo xam ne ni euh, Serigne Moussa Niang la tudd muy bëkk nekk ci Serigne Saliou Mbacke téeméeri xar ak juróom fukk yëpp fas yéene ko jébbal euh, sëriñ Saliou Mbacke gis nga nag euh, xar yaa ngi nii nag sëriñ bi nag fii la jógee rek euh, pour fas yéene wuti kër sëriñ Saliou Mbacke mu ngi nekk ci otoom yëpp ay xaram ci ay camion ak ci ay Peugeot mbaar pour fas yéene wuti ji kër sëriñ Saliou Mbacke mu ngi nii nag ci mbeddu Touba rek di wuti ji kër sëriñ Saliou Mbacke ñu fàttali ko liggéeyu tabaski liggéey bu am solo la bu ñu àggee kër Sëriñ Saliou dinañu xam solo bi nu mu tëddee ndax liggéey bi euh, ñu koy def ci yoonu murit bëri na waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp euh, dañuy joxe ay euh, tabaski am na tamit ñenn ñoo xam ne ci murit yi ba ci mbàkki mbàkke yi ñoo xam ne tamit dañuy joxe tabaski nga xam ne tabaski saa su jotee dañuy wut gàtt ñii ñoo xam dañuy joxe xaalis te liggéey bi yaatu na sëriñ bi tamit ànd na ko ak euh, taalibe yi yu nekk ci réew mi ba ñu nekk bitim réew sax ñu ngi bokk ci liggéey bi nga xam ne sëriñ Cheikh Rokhaya Fall mu agsi na fii euh, kër euh, sëriñ Saliou Mbacké xalif général des Mourides mu ngi nii nag ànd rek sëriñ Moussa Niang di bëkk néeg sëriñ Saliou mu gàttandu ko teeru ko rek ñu fas yéenee ànd rek pour fas yéenee àgg ci euh, njëbbale bi euh, mu ngi nii nag di diisoo ak euh, Serigne Moussa Niang Serigne Cheikh Roqe Fall ànd na nii ak Serigne Moussa Niang mu agsee fii kër Serigne Saliou ci liggéeyu tabaski boo xam ne ni mu ngi koy andi fii ci kër euh, Serigne euh, Saliou euh, Mbacke sëriñ bi nag mu ngi nii nag bu mu waxtaanee ak sëriñ Moussa Niang léegi nag Serigne baa ngi nii nag di agsi fii rek nga xam ne nii ci néeg bi nga xam ne nii fii la ko Serigne Moussa Niang andi néeg bi nag bu ñëwee nag Serigne bi agsi na mu ngi nii nag di siyaare Serigne Modou Gaye Serigne Modou gay nag di jëwriñ ci kër sëriñ Saliou Mbacke nga xam ne ni moom nag moo yor liggéeyu tabaski bi nga xam ne nii. tabaski bu fi agsi rek euh, ci moom lay jaar euh, sëriñ bi jébbal ko ko léegi nag euh, sëriñ bi mu ñëwee nag agsi na fii ci biir néeg bi ak délégation bu mu àndal ñu fàttalikoo nag ngi sëriñ bi ànd na ak délégation bu am solo ànd na ak ay rakkam ànd na tamit ak koo xam ne euh, nijaay la ci moom muy Serigne Fallou Fall ànd ak Serigne Cheikh Xataaba ak euh, taalibe yi léegi nag euh, bu ñëwee dalal nañ leen fii ci biir néeg bi nga xam ne ni fii la ñu fekk sëriñ Modou Gaye Serigne Modou Gaye lañ jàkkaarloo ni mu ngi nii nag diisoo ak Serigne bi sëriñ bi di ko jëbbal liggéey bii nga xam ne nii moom la fi andi fii ci kër Serigne Saliou Mbacke Serigne Modou Gaye nag moom lañ jàkkaarloo ni mooy jëwriñu Serigne Saliou nga xam ne ni moom moo yor liggéeyu tabaski bi kon ñu ànd ak moom ci ay kàddu ak euh, Serigne Cheikh Rokhaya ci njëbal bu mu koy jëbbal tabaski bii mu fi àndi sama boo ñaan ne ko ñi nga xam ne ñëpp noonu la def laa bëgg a def mm. ndax noonu bi sëñ bi doxul mm. nan nangul sëñ bi nan nangul suñu jëf ndax mas na maa dajeeg sëñ bi ka msaka ca corniche ba ma ko téeméer bi nii joxal ma ko sëñ bi boobu yegg seeku ma ci doy googu nag lañ doy ku leen doy la ko daanaka ñi ñëpp wéy daal moonu benn ci jëloon yàgg ñoom daal xool leen muy bëri basiratu xal bi rek seen boole dafa ñaan wax ñu yóbbu leen tamit oto baa ngi yàlla na bis bi gannaaw ñaan bi dama a liggéey rek gën a barke lay indi fii. parce que sa bàyyi ko yàlla bu mu ko jébbalee. ay euh, gàttoom sëriñ bi jëbal na ko lu war a mat euh, euh, téeméer ak juróom fukk fukk ak euh, benn yoo xam ne ni ak million ci euh, xaalis jébal na ko Serigne Modou euh, Gaye ñoo ko dëggandoo fii nekk la Serigne Cheikh Rokhaya nekk di yeeweeku bu mu ñëwee jébbale ay tabaski woom ñu fàttali ko rek na ni tabaski bi kilifa gu mag gi muy Serigne Saliou Mbacke dafa fàttu ba kenn gisu ko Serigne bi bu mu ñëwee it def na lu ko war andi na ay tabaski woom jébbal na ko Serigne Modou Gaye moo xam ne mooy jëwriñ bi moom moo yor liggéeyu tabaski bi bu mu ñëwee nag jébbal na ko bu mu ko jébbalee tabaski ba noppi mu jébbal ko lu war a mat téeméer ak juróom fukki euh, xar ak euh, million sëñ baa ngi ni nag di yeewee ko rek euh, pour fas yéene wuti jiwaat paaleen foofu nga xam ni fa la jógee woon doon fa dajalee ay tabaski woom ñuy ñaan mu yàgg di ñaanal sëriñ Saliou Mbacke nga xam ne liggéey bu am solo bi nga xam ne ni moom it euh, mu ngi koy euh, def ci wàllu tabaski léegi nag ñu àndi leen tamit euh, ni liggéeyu tabaski bi liggéey bu am solo la ci yoonu murit ci kanam tuuti dinañ ci am ay leer laar yoo xam ne ni bu agsi kër Serigne Saliou Mbacke ba noppi léegi nag ñu ngi jàkkaarloo ni ak sëriñ Aline Fall moom it di ràkk ci Serigne Cheikh Rokhaya nga xam ne ni moom la Serigne bi dénk liggéeyu tabaski yi nga xam ne wër mu ànd ak Ibrahima Kebe euh, ci Touba ak euh, lu ko wër am na tamit ñoo xam ne ñu ngi wër ci réew mi euh, di laaj taalibe yi ñu joxe ay tabaski boole ko ak lu sëñ bi yor ak ñoo xam ne dañu nekk bitim réew tamit nga xam ne ñu ngi yónnee seeni tabaski ñu boole ko lépp bu bés yu dem bu bés bi njëbal bi ñëwee ñu àndi ko jébbal ko Serigne euh, Saliou Mbacke kon Serigne Alioune Fall moo xam ne ni moo yor liggéeyu tabaski bi moom la fi sëñ bi bàyyi pour ci wàllu xari fu ñu ko war yóbbu mu ngi nii nag di waxtaan ak euh, Serigne moodu Gaye mu di ko leeral xamal ko nu mu bëggee liggéey bi euh, bu mu agsee ci moom nu mu bëggee moom it ñu. defal koko nga xam ne ni euh, liggéey bi nii la ko Serigne Modou Gaye bëggee euh, Serigne bi bàyyi fi Serigne Aline nga xam ne moom it euh, jëwriñ la ci Serigne Cheikh Roqe Fall yor liggéeyu tabaski boo xam ne ni mu ngi koy defal Serigne Cheikh Roqe Fall. nag euh, la Serigne Modou Gaye nekk di yeewee Serigne euh, Alioune Fall euh, di ko ñaanal bu mu ko xamalee nu mu ko bëggee mu. jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne andi nañ ko fii euh, jóge kër Serigne Cheikh Rokhaya Fall agsi fii ci kër Serigne Saliou Mbacke ñu jébbal ko fii nekk la Serigne Modou Gaye yeewee Serigne Aline Fall xamal ko nu mu bëggee liggéey bi euh, Serigne Aline Fall nag jox na ko benn list boo xam ne list bi nag moom la bëgg moom it euh, mu defal ko ko mu sëddaleel ko xar yi tas ko ci kër yi yii mu yóbbu ko ci xisbu tarxiye yi lii mu tas ko ci njabootu sëriñ tubaab yi moom la sëriñ Aline Fall nekk ni di gëstu. jenn jenne la xanaa. jenne waaw jenne jenne. sëñ Xaadim Jeng. sëñ Xaadim Ñang wala. Ñang Ñang waaw. la ci ginnaaw indi la. yi nga wax gunde woon daanaka. xam nga jege rek. waaw xam ñoo taxaw. fii sori moom it. soxna Bousso soxna Aïda Bousso. kayit bii nag la sëñ bi doon laaj. waaw moom moom daa fekkoon soxna moom. soxna gàddu Bousso. soxna may soxna Badji. ak imam Bousso ak soxna mooy kooku soxna jaxat yoonu jënd. Hmm, waaw xam naa hmm, soxna yëmu man ci euh, ñu ngi ànd ak ak yéen ba léegi fii euh, kër euh, Serigne Saliou Mbacke ñu ngi ànd ak Serigne Alioune Fall moo xam ne moom la fi Serigne Cheikh Roqe Fall bàyyi ci liggéeyu tabaski yi bu ñëwee ba jébbal ko Serigne Modou Gaye ba mu ñaanal Serigne Cheikh Roqe Fall léegi ñu ngi nii jàkkaarloo ak list boo xam ne ni moom la Serigne Alioune Fall ànd ak ak jëwriñ bi Serigne moodu Gaye pour ci wàllu tabaski bi léegi nga xam ne tabaski bi nag dañ koy Euh, sëddale di ko tas ci euh, kër yi euh, téeméeri xar yi ak si jógee kër Serigne Cheikh Roqe muy téeméeri xar ak juróom fukk léegi nag téeméeri xar ak benn bi dem nañu ci isbu yi euh, téeméeri xari Serigne Saliou moo ko fa yóbbu euh, Serigne Modou Gaye joxe ndigal ñu yóbbu ko fa euh, beneen benn bi Serigne Moussa Niang bëkk néeg moo ko moom léegi yeneen juróom fukki xari mu ngi nii nag ñu di ko tas ci kër yi kër yi nag muy dem dinañ ci ànd ay leeral jël nañu ay information yoo xam ne ni gis nga nag ñoo ngi ni agsi nañu ci biir Touba ci kër yi nga xam ne ni gis nga ñoo ngi nii nag di jébbale xar yi nga xam ne ni bu ñëwee ba jébbale ko ko Serigne Saliou andi ko ba Serigne Modou Gaye ndiga léegi dañ ko liste nga xam ne dañ koy tas ci njabootu Serigne tubaa gi nga xam ne ni képp koo xam ne ni euh, sëñ Touba moo jur sa ndey rek euh, sëriñ Saliou dafa yóbbu tabaski ñu andil ñu tamit euh, yi beneen information boo xam ne andil nañ ci ay leeral ñu xamoon ni Serigne Saliou tabaski yoo xam ne day ñëw ci moom. lépp lu fi musi ak si ci euh, tabaski lu jëkk ci sëddale mi da koy jox euh, jàngkatu alxuraan yi ba noppi ñoom lay njëkk sëdd muy daaray kaamil yoo xam ne dafa aajoo ci Serigne euh, Touba nga xam ne ni moom Serigne Saliou ñoom lay njëkk sëdd bu noppee mu ñëw ci ilimaanu jumaa yi ak jàkk yi yoo xam ne dafa aajoo ci moom bu ñëw ñu noppee tamit mu ñëw ci noddukat yi sëdd leen bu ñu noppee mu ñëw ci ñu jàkk yi euh, jumaa yi ñoo xam ne ñoo koy bale di ko saytu di ko sellal sëñ bi da leen di sëdd tabaski euh, bu noppee nag daldi ñëw nag ci njabootu maam euh, njabootu maam euh, Serigne Touba yi nga xam ne ni euh, fépp foo xam ne Serigne Touba moo jur sa ndey rek dina fa yóbbu tabaski bu loolu nappee tamit ci màggu taalibe yoo xam ne tamit àndoon nañu ak Serigne Touba tamit dina fa yóbbu ak yenn màggu taalibe yoo xam ne ñu ngi nekk ci waar bi kon tabaski bu ñëw kër Serigne Saalu nu mu munti toll nga xam ne lu paaleen yëpp dinañ fa andi tabaski ak ñenne ak ñenn ci mbàkke mbàkke yi tabaski bu fi ñëw it Serigne Saalu da koy daal di tas sëddale ko ci. njaboot gi léegi nag gis nga ci biir euh, loolu rek agsi nañu fii euh, euh, ci njabootu Serigne Touba rek gis nga ñoo ngi nii nag di wër di yóbbu tabaski di ko yóbbu ci euh, njabootu sëriñ Touba yi léegi nag agsi nañu fii euh, ci euh, kër soxna May mbakke jaar nañ fa dinañ ko gis léegi soxna baali dinañ jaar ci kër soxna yu njab soxna yi yoo xam ne ñëpp Serigne Touba mooy seeni maam moo jur seeni ndey nga xam ne ni ñu ngi jébbalee tabaski di ko fa yóbbu gis nga rek Serigne Ali na ngi nii di yóbbu tabaski di ko jébbale ci ndigalu sëriñ du Gaye bu ko sëriñ Cheikh Rokhaya àndee ba noppi mu xamal ko ni man it dama bëgg nga jàppale ma ci liggéey bii nga xam ne ni yeneen koy def ñu di ko def ngeen yóbbu xar yi di ko jébbale gis nga rek ñoo ngi wër na ci Touba ci kër yi di fa yóbbu ay euh, tabaski agsi ñu nag euh, fii ci biir euh, kër Soxna May ñu ngi jàkkaaroon ak euh, Soxna Bali Mbàkke mu Soxna May nga xam ne fii tamit Serigne Saliou andi na fi ay tabaski ñuy ñaan Serigne Saliou gudd fan te wér te yàgg fii lool. Euh, ñuy ñaan euh, Serigne Cheikh Roqe Fall nga xam ne moom la àndal liggéey bi tamit mu yàgg fi te ba liggéey bii nga xam ne ñu ngi koy def ñu def ko ay ati at ati at kon ñu ngi jàkkaarlu ak euh, soxna baali mu soxna May comme ni ñu leen ko waxee rek Serigne Saliou nu muy séddalee moom it ay tabaski woom nga xam ne tabaski bu agsee da koy séddale ci njabootu Serigne Touba yi rawatina jànkatu alxuraan yi ak ilimaanu jumaa yi ak ñëpp ñoo xam ne dañoo nekk ci liggéey jumaay Touba ak jumaa yoo xam ne dañ ko wër fii ba njaareem képp koo xam ne ni euh, jànkatu alxuraan nga nekk ci daaray kaamil sëñ Saliou dina la jox tabaski euh, rawatina tamit ilimaanu jumaa yi ak jàkk yi yoo xam ne dafa wër te aajoo ci moom sëriñ Saliou Mbacke noonu la koy defee euh, ñëpp na leen yóbbu jox leen tabaski bu noppee tamit jox njabootu sëriñ tubaay gi yëpp na fa yóbbu ay tabaski woom kon ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam te wéral ko di ñaanal tamit euh, sunu sang bu baax bi Serigne Cheikh Rokhaya Fall ci liggéey bu am solo bi moo tax euh, tamit euh, il faut ñu gën ci soññu mbokku taalibe soññ ci sunu bopp ba liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def rek ñu gën ci góor góorlu te xam ne liggéey bu am solo la ndax bu jógee kër Cheikh Ibra Fall bu ñëwee kër Sëñ Touba gis nañu liggéey bi nuñ koy séddale gis nga nekk ñoo ngi ci Touba rek di nekk rek di tasaare ay tabaski gis nga bu guddi na sax teewul ñu ngi yóbbu. ay euh, tabaski fépp mu foo xam ne ni tey penc la maanaam ci biir wër bi nga xam ne ñu ngi koy wër yóbbu nañ ko ba kër sëñ Abdourahmane Lo ñëw nañu ba ñenne fépp foo xam ne ni euh, doomu Serigne Touba mu ngi fa rek euh, yóbbu na fa Serigne Saliou yóbbu na fa ay tabaski kon ñu ngi ànd ak ak yéen ci Touba gis nga guddi na sax waaye teewul ñu ngi nekk ci liggéey bi takkusaan lañ ko tàmbali. Euh, di wër ci mbeddu Touba yi euh, ba fukki waxtu cën euh, ba léegi Touba rek ci tabaski yi ñuy yóbbu rek ci kër Serigne Saliou Mbacke tey nag di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre 2007 ñu ngi ni jàkkaarloo tamit ak beneen kuréel boo xam ne ñoom tamit ñu ngi yóbbu seen i tabaski ñu ngi ci seen sa ab gëléem ak ay xar ñu yor ko ni rek di dox di ko yóbbu kër Serigne Saliou Mbacke ñii nag ñooy waa kër Serigne Aline Fall Mbawor yi Serigne Cheikh Fall Mbawor moom tamit mooy yóbbu tabaski woom nii euh, di ko yóbbu di ko jëbbal Serigne Saliou euh, Mbacké comme ni ma leen ko waxee rek gis ngeen liggéey bu am solo bi nga xam ne ni euh, murit yi ñu ngi koy def rawatina nag Baye Fall yi nga xam ne bu tabaski jotee dañuy jël ay gàtt ay xar di ko yóbbu di ko jébbale gis nga kii sa moom boole na ci gëlëm li nga xam ne ni ñu ngi ko fas yéenee jëbbu jébbale ko Serigne Saliou Mbacké asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu ngi ànd ak ak yéen fii euh, Touba Fall tey nag euh, di ñaar fukki fan ak euh, benn ci weeru décembre 2007 tombeek euh, tabaski kon ñu ngi ànd ak yéen fii euh, ci pencum euh, Touba Fall ñuy waajal julli tabaski comme nu ko julliti yëpp di defee ci réew mi ñu fas yéene ko ànd ak Serigne Cheikh Roqe Fall mu ànd ko tamit ak ay rakkaam ak njabootu Serigne Cheikh Fall Baye góor yëpp kon ñu ngi ànd ak yéen fii ci Touba Fall ci tabaski bu 2007 bu fukki waxtu jotee rek gis nga ñu ngi nii ci penc mi géwél yaa ngi nii. nag di bàkk ndënd yi eh, di soññu taalibe yi pour ñu génn rek ñëw fas yéene ànd ak sëriñ bi dem ba ci jullee kaay bi comme fii la sëriñ Cheikh Roqe Fall di jullee tabaski comme ni ko ay maamam daan defee sëñ Modou Moussa Fall bu mu fi jógee kilifoom waa juróom sëriñ Cheikh Fall fii Touba la doon jullee tabaski ba léegi fii la Serigne Cheikh Roqee Fall di jullee tabaski kon ñu ngi nii nag jàkkaarloo ak géwél yi ñu nekk di soññ di waaj rek eh, di soññi pour mbooloom yëpp génn ñu fas yéenee jógendoo ci kër gi dem ci julleekaay bi ñu ngi ñuy jàkkaarloon nag ak téere alxuraan rek nga gis ni euh, bu ñu xëyee fii rek ci bésu tabaski bi rek euh, balaa ñu dem ci julleekaay bi euh, dañ fi nekk di wàccee alxuraan di jàng kaamil nga seen taalibe yi ñu ngi nii nag di jàng alxuraan di jàng kaamil loolu mooy ndigal li balaa ñuy dem ci jullikaay bi ñaar fukki fan ak euh, benn ci weeru décembre rek euh, mooy euh, tabaski ñu ngi ànd ak ak yéen fii ci Touba Fall rek ci tabaski bu 2007 gis ngeen rek waa dëkk bi yëpp génn nañu ñëw nañu fii ci biir kër gi rek ci kër sëñ Modou Moussa Fall bi fii nga xam ne ni fii la ñuy xaar sëñ bi génn rek ñu àndandoo pour fas yéene dem ci julleekaay bi kon ñu ngi ànd ak ak yéen fii ci Touba Fall. bu fukki waxtu jotee rek waa dëkk bi yëpp génn nañu euh, góor jigéen mag ndaw ñëpp ñëw nañu rek euh, di xaar sëñ bi pour ñu fas yéene àndandoo ba fu ñuy jullee ñu fàttaliku rek euh, ni julli Touba Fall ñu ngi koy defee ci penku dëkk bi. Sëriñ Abdou Sakor Mbodj moom mooy ilimaanu dëkk bi moo fi ji julli di jiite tabaski. góor yàlla yaa ngi nii nag euh, di tudd yàlla rek euh, di waajal rek euh, ba sëñ bi génn ñu àndandoo rek pour fas yéene dem ci julleekaay bi. 21 décembre 2007 ñu ngi nii nag euh, di tabaski rek jàkkaarloo ak Serigne Cheikh Rokhaya Fall rek euh, bu mu génnee rek euh, pour fas yéene dem si jullikaay mi ngi jàkkaar ni ak Serigne Serigne Abdou Sakor Mbodj nga xam ne moom mooy ilimaanu dëkk bi rek mooy jiite fi tabaski ak korite mu ngi nii nag di ñëw di si Serigne Cheikh Rokhaya Fall ci gamaat gi ci biir kër gi rek suñu noppee àndandoo rek fas yéene dem si jullikaay bi kon Serigne Cheikh Rokhaya lañu jàkkaarloo nii ak Serigne Abdou Sakor mbooj fii euh, ci Touba ci tabaski bu 2007 Euh, ba waa dëkk bi nekk euh, di siyaare rek gis ngeen sëñ baa ngi ci nag tamit euh, di jàng ci alxuraan bi rek comme loolu lañ joxe woon ndigal rek balaa ñuy julli ji nañu wàccee kaamil jàng fi alxuraan sëriñ bi tamit bu mu génnee rek moom it mu ngi nii di jàng di ñaan amin ya rabbal alamin léegi nag ñu fas yéene waaj rek bu fukki waxtu jotee ba tegal fanweeri minute ci la sëñ bi jógee rek di waaj pour fas yéene ànd ak waa dëkk bi yëpp dem ba ci jullee kaay bi kon tabaski bu 2007 tombeek ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre 2007 fii nag euh, la ñu jógee rek euh, pour fas ne wuti ji julleekaay bi nga xam ni ñu ngi jullee ci pencu euh, penku dëkk bi rek nga xam ni fa la ñuy jullee it sëriñ bi nag fii la jóge ci biir kër gi ànd ak mbooloo mi rek pour dem ci julleekaay bi kon ñu bàyyi leen ak julli tabaski bu 2007.